ñoo déggandoo décision conseil constitutionnel bi. Mhm. Euh, li ñu mën a wax rek moom mooy encore une fois Sénégal c'est une démocratie. Euh, démocratie nag euh, dafay nekk di construire à chaque fois dafay am ay yëf yu bees yuy ñëw. Mhm. xam nga conseil constitutionnel traditionnellement ni ñu ko xamee woon bokkut ak conseil constitutionnel bii ñu gis peut-être war nañ ci réjouir pour ñi nga xamante ne dañoo intéressé wu ci li jëm ci liy yokkal contentieux électoral. Euh, décision bi nga xamante ne moom la conseil constitutionnel jël nag rejeté euh, résultat dialogue bi en tout cas consensus bi fa amee woon mhm. euh, ñiy prendre acte di wax ni li gën a am solo tey moom mooy nañu dépassé ñun ñëpp situation bi nga xamante ne moom la Sénégal nekk ndax boo xoolee économie bi taxaw na te loolu yëpp dara waral kon lu dul incertitude bi nga xamante ne moom la ñu nekkee mhm. kon dañuy même bu fekkente ne Euh, man d'accord ma ci décision bi dañuy accueillir décision boobu di ñaan yàlla ñu mën a dem ci élection yi si jàmm ak salaam ki nga xamante ne euh, yàlla tudd na ni moo war a jiite Sénégal euh, ñu élire ko ñëpp nangul ko ko mu mun a jiite Sénégal gérer bu baax réew mi dans les pour les cinq prochaines ah,